mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi remercier toute la presse yi nga xam ne ñëw nañ tey jii wuy suñu di gërëm population waa Médina di leen sant di leen gërëm ndax conférence de presse bi waajuñu ko sànq ci 4 heures lañ ko waaj wara nag waxtaan ak réew mi muy waa Médina ñu leeral que ne du conférence de presse boo xam ne le président Cheikh Ahmed Diane Ba moo ko def. defu ko ñi nga xam ne ñoo ànd ak président Cheikh Ba di ay collaborateur am di ay collaboratrice am ñoo woote conférence de presse bi muy point de presse lan lañ ci jublu mooy leeral weddu nag jàmbaar moo koy def garmi moo koy def ñu nekk biir Médina ku ne xam sa bopp ku ne xam yaay kan président Cheikh Ahmed Tidiane Ba créé lu ñu wax CATB mu judd rek màgg raamul jëfandikuwul wane boppam ci réew ñu bari nag nelawatuñu yandooratuñu ñuy dem am loo xam ne moo xew le 3 juillet 2021 muy concert boo xam ni dañ ko may président Cheikh Ba mu may ko waa Médina mu waroon am le 8 mars 2019 ca Grand Théâtre Covid 19 ñëw comme patriotisme ñu annulé ko waroon ko defaat nag Grand Théâtre fayloo ku nekk 10 000 15 000 20 000 25 000 ba 50 000 billets président Cheikh Ahmed Tidiane déedéet day waxtaan ak Wally mu defal ko ko Médina mu offrir ko li nga xam ne daf ko cher muy waa Médina. ñu organiser ko ci diggante ñetti fan mu weesu njortu ñëpp nag mayu ko nag waa CATB mais waa Medina la ko may couche yëpp ña nga fa woon ethnie yëpp ña nga fa woon race yëpp ña nga fa woon kenn desul foo sànni mbattu mu tag mu nekk réussite bu total dépassé entendement yëpp ñi nga xam ne nag seen gémmiñ day nàcc mënuñoo wax jàmm ñu tiit xamuñu fu ñuy teg seen tànk ñu dugg ci réseau sociaux yi dugg fu nekk di indi ay tuuma tuuma yooyu ñu indi nag ñun ci Medina lañ juddoo fii lañ yaroo fii lañ màggee gëm nañu diine yi nga xam ne moo fi nekk yépp te ku xam nag CATB xam Medina nga xam ne fii ragal nekku fi yaafus nekku ndaxte lañuy bañ Medina démb ak barki moom la ñuy bañ tey ba léegi tey kon CATB li mu def mu yëngal réew mi amuñu luñ ci bëgg a def du dul xajamal ceeb bi sotti ci suuf du mën a nekk moo tax ñu wootee point de point de presse bi pour leeral askan bi li xew président Cheikh Amadou Diagne Ba nag nitu daara la nitu diine la nitu intellectuel la kooku duñ ci wax duñ ci jaaraat ñëpp xam nañ mais li nga xam ne moo am quand adverse bu fekkee dañu am lu ñuy wax nañ ko wax ak waa population Médina ndax concert boobu ñi àndul ak ñun ak ñu ànd ak ñëpp ñun dañu wëlbati ko ànd ak ñun parce que dañu bëgg dañu kontaan ci li CATB defal Médina kon nag ñu ngi attirer attention wu autorités yi nekk ci réew mi bu baax xam leen ne kat camp adverse bii li ñu bëgg mooy tuuma bu tuuma gi jeexee ñu indi fitna indi histoire indi ay arme indi paaka indi jaasi indi reyante te loolu nag bés buñ ko yëkkatee fii ci Médina dinañ xam ne waa CATB yaafus amu fi ragal amu fi ku ko ku ko sumb dim ci bëgg a génn mu tëla ndax foo mën mënti nekk dañ la fa fekk jëflante koog yow jàmbaar la yow ba mu saf sap ñun nag Médina la ñu am dañ koy sauvegarder Médina ñoom ñoo taamu seen bopp ñoo choisiral seen bopp ki leen di jiite ku am bilan na ko wax mais Cheikh Ba du bilan Cheikh Ba du maire Cheikh Ba du président assemblée national Cheikh Ba doomu Médina la nekk Médina bëgg Médina ànd ak ay nit ci ginnaawam góor jigéen ñuy développé ci seen kéntalaayu kàttan li nga xam ne moo nekk Médina ci jafe-jafe kon nag bu ko waa Médina taamu ne dañ koy jox maire Médina ku am looy wax nag ñu attaqué sur un bilan nag ñu attaqué sur le plan intellectuel mais bu ñu attaqué ci ay sos di ñu tuumaal réew Sidi Hadji xam nañ ko réew Serigne Bamba la xam nañ ko réew Seydina Limamou xam nañ ko réew Baye Niass lay réew Cheikh na Cheikh Sadbou xam nañ ko Cheikh Amadou Diagne Ba nag def ci nekk guddeeg bëccëg du màggal du gàmm du appelu laayeen di waa kër Cheikh na Saad bu saat lenn loo xam ne moom àndu ceeg population Médina di ci def kent laayu kàttanam ndax boppam la ko defal moo tax ñu woon nag la Médina ñu leeral leen xam leen ne nag saay saay yàqul xel mais yàq nay xalaat kon ñu déglu ñu bu baax CATB nag day dem incha allahu rabi kenn du ko téye wax ji mënu ko téye kàddu gi dañ koy gàttal bàyyi sama ay naataangoo ku ci nekk sànni ci ay kàddu wante daal récréation bi moom jeex na dootuñu mayti kenn dara ci jàmmaarloo bi ñuy def ci médiatique bi di ñu tuumaal di ñu sosal ci loo xam ne dara ci dëgg wante doomi Medina yeewu nañu nag dégg nañu message bu foor xam nañ ne dara ci dëgg jërë ngeen jëf la presse ñu ngi sant ñi fi teew ñëpp merci beaucoup encore une fois man la Maguette Seye nekk superviseur bu CATB bu zone 1 bokk ci pôle communication bu CATB. Euh, je me présente Gallo Thiam secrétaire général de la CATB. damay wax ci effectivement ci turu président Cheikh Ahmed Tidiane Ba. Euh, représenté ici par son coordonnateur Gorgui Ndoye euh, le prétexte Maguette Seye wax na ko. mooy concert bi nga xamee ni euh, Cheikh Ba may na ko la jeunesse de la Médina à travers sa structure proxime Médina te El Hadji Abou di ko jiite d'abord dañuy wax Wally Seck que waa CATB le porte dans notre cœur ndax suñu doom la te jarbaat la ci Cheikh Ba te fu ko Cheikh Ba woo mu wuyu concert boobu nag c'était le concert de la paix et de la concorde boo xamee ni le président Cheikh Ahmed Tidiane Ba réfléchir na ak ñi mu ko war a réfléchir muy un concert boo xamee ni qui restera gravé dans la mémoire des Médinois parce que ça a été une réussite totale apothéose la woon boo xamee ni vraiment am na solo ndax xale yi génn nañu mag ñi génn nañu et massivement alors maintenant on a été très déçu trop déçu par certaines réactions yoo xamee ni à travers les réseaux sociaux génn nañu wax loo xamee ni ay kàcc ñoo ko lal ay wax lu dul loolu moo ko ay jalousie moo ko lal ndax ñoom il porte viscéralement le président Cheikh Ahmed Tidiane Ba dans leur cœur li ñuy wax nag mooy la percée du président Cheikh Ahmed Tidiane Ba et également la CATB mouvement politique incontournable au niveau de la Médina loolu dafay dagg seen xol su fekkee ni nag loolu mooy dagg seen xol qu'ils comprennent dina yàgg dagg seen xol ndax la CATB c'est un mouvement boo xamee ni waa Médina ñoo ko bëgg si seen xol ñi dëkkul Médina sax ñoo ko bëgg les sympathisants et consorts et non sans surprise on a été très déçu d'entendre dire que Wally Seck 30 lañ ko jox ce qui est archi faux ce qui est archi faux ñi ko wax qu'il nous donne les preuves su boobaa ñu gëm ni loolu ñu wax am na ndax nag dafa am loo xam ne nii euh, soo sentiree tey jii chaise bi nga toog tey c'est un pouvoir chancelant tout ton problème mooy seet naka ngay xajamalee et on a entendu sax dire que effectivement que on a euh, emporté du bétail politique concert bi day ñëpp xam nañu bi mu jeexee kenn jëlul kaar dem ñëpp a dox dugg seen kër loolu firnde la xam nga dafa am loo xam ne ni il faut que ñu comprendre ko ces délégués, ces soi-disant délégués qui sont de l'autre jour, moi, je suis très déçu. Je suis très wax Nous ñaaw mais mun nañ ko ndax taxaw publiquement, ne lii moo tax ñu organiser ko loolu venant de la bouche des gens yoo xam ne ñun ñoo dëkk loolu nekk na gàcce goo xam ne ni dootuñu ko mën a raxas mukk ndax am na wax yoo xam ne soo ko xësee ba wax ala kuli aal dafay des mais gis nga le statut de de Cheikh Ba candidat favori à ces élections locales du 22 du 23 janvier 2022 kenn mënu ko xajamal ndax ce sont ñoo ko porté dans le cœur encore une fois d'ailleurs nous accordons un peu de crédit à ces propos malveillants mal intentionnés de ces gens de ces bénévoles yi nga xamee ni ñoom il sont à la rescousse à la euh, ressource du maire bi nga xamee ni amul vision amul xam-xam les gens lui ont demandé de dégager il doit alors dégager dina am nag loo xam ne ni dinañ ko wax duñ su dugg parce que du suñu domaine les techniciens qui devaient répondre ont répondu en la personne de Moustapha Diop, responsable de 37.5. Il a répondu, donc ça, on n'en revient pas. Mais peut-on interdire un authentique médinois comme une Cherba d'offrir à sa jeunesse un concert que de côté ñoom joxe nañu maye nañu concert la différence. Peut-on introduire à un Médina, à un Médinois, comme Cheikh Ahmed Tijanba, président de la CATB, mais d'avoir des ambitions pour sa Médina natale, sa Médina qu'il porte dans le cœur. alors yéen waa Médina yéen la waxal xam ngeen ni Cheikh Ba espoir bi mu indi musula am moo tax ces détracteurs dinañu wax waaye Euh, le détail est dans le diable. Le diable est dans le détail. Les chiens aravois, euh, car, euh, la caravane passe. Qui il veut. Mhm. N'est pas Messie qui il veut. ndax on court jàpp nañ ni Cheikh Ba c'est un don du ciel moo tax waa Médina jàpp ko nar a ànd moom ci li nga xamee ni dafa am. Euh, il faut juste rappeler que Cheikh Ba, mais il est dans l'excellence. Il est dans l'excellence. Dans tous les domaines. Éducation, environnement, cadre de vie, et culture, sport. Comme Cheikh Ba, ñi nga xamee ni ñooy jël comme le dit notre ami di mbele mbele mbele rek nañu compter mbele mbele ñun li ñu gëm gëm nañ ko Cheikh Ba pourquoi il encadre la jeunesse mais c'est parce que il voudrait que ces jeunes deviennent des Cheikh Ba c'est tout et c'est normal et c'est noble et c'est louable dañuy jàpp nag ni euh, Cheikh Ba mooy symbole de la générosité et de la solidarité agissante maintenant nag trop c'est trop trop c'est trop à ces gens-là ñi nga xam ne ni war nañ ko xam et on met en garde les autorités on met en garde les autorités de ce pays parce que gis nañ ni la violence verbale est en train de germer au niveau de la Médina gis nañ nag lépp loo xam ne ni ñu ngi koy def et on a des échos comme quoi que ñoom am nañu yeneen xalaat yoo xam ne ni pour faire reculer la CATB pour dire, pour barrer la route à, la, à, à, à, à mais on ne peut pas arrêter la mer avec ses bras. Donc moi je pense que nous saisir cette opportunité, euh, cette opportunité pour demander encore aux Bédinois, nous avons dit que Cheikh Ba avec équipe bu mu mën a indi pour gagner les élections yi incha allah ñu ngi leen di tàllal loxo les Médinois jeunes femmes troisième âge les anciens les sportifs les culturels yéen ñëpp ñu ngi leen di tàllal loxo te xam ngeen ni tàllal loxo bi ñu leen tàllal loxo yéen gëm ngeen ni c'est le meilleur profil gëm ngeen ni c'est le meilleur choix kon boog prétexte bii nga xamee ni concert bi ñu def ñu bëgg ñu xajamal ñun on dit non et si c'était à recommencer dinañu recommencer ndax gëm nañ ni au soir du 23 janvier la victoire sera du côté de la CATV je vous remercie. asalaamaaleykum wa rahmatulah. maa ngi nuyu ñi fi teew ñëpp. di nuyu waa CATV yëpp di nu jiital nuyoo bi suñu président Cheikh Ahmed Tidiane Ba. di nuyu presse bi fi teew yëpp tey ci point de presse bi nga xam ne moom la ñuy def man la Adja Bigué Diène di superviseur zone 3 bi ñu ñëw tey nag di doomu Ameth Diène dëkk ci Médina di sant sama sëriñ sama wasila sëñ Babacar si di wax na yàlla nañ commencé si bisimilahi rahmaani rahim eggale ci alhamdulilahi rabil alamin tey nag li war a point de presse bi lenn rek la parce que boo naan duma tontu nit fa ngeen jëm dafa soriwul ndax wax coow li bari na wax ji bari na ndax CATB liggéey lañu xam xamuñu dàgg sante ñu ngi woo ci dàgg sante nag duñ leen wuyu ci dàgg sante waaye dinañ leen wuyu ci tontu dëgg ndax ku say nakk jeex nga aj say kook ñun nag dañu dëkkoo Medina juddoo Medina di politiquer biir Medina Cheikh Ahmed Tidiane ba nekk fi di politique politique bu rafet nag macha allah ñun ñi nga xam ne dañu judd ci politique màgg ci politique. bu ñu demee ba topp Cheikh Ahmed Tidiane ba ci politique parce que politique am rafet na ci biir Medina ni ñuy naa mbele mbele nag bari coow la ndax dañu am concert comme ni ko ji Màgg Sey waxee barki Dembo Njaay ñu yàq suñu der. yàq deru waa CATB yàq suñu deru leader waaye nag àdduna moom nee nañ wax ju bon dëkkul fa mu jëm fa mu jógee la cosaanoo ñun xamuñu wax ju bon duñu def lu bon liggéey lañu xam Cheikh Ahmed Tidiane Ba daf ñu taatagal ci liggéey ak def promotion de la femme et des jeunes ñun looloo ñu tax a jog di créer ay emploi di dimbali jeunesse su Médina te bëggul ku ko wax waaye nag yàlla sax bëgg na ku ko ne jërëjëf mu nekk biir Médina amul budget dafa yor poosam rek nekk directeur général ak ay nit yu baaxam ñu nekk ci wetam benn ku mel ni suñu coordinateur bi toog di El Hadj Gorgui nekk ci wetam ak superviseurs yi ko wër yëpp ak Proxim bi nga xamante ne lii moo ko organisé woon ñu koy jàppale ci seen poos ak ci seen xel waruñu fen ñaanaatu ñun suñu biir ñun ñooy dimbalante bañ nañ ko ba lu am biir sayaatee bee ñun ñooy cotiser suñu biir ba ci barki dee moo njaay dégg ngeen annonce bi jigéen ñi def ne caution Cheikh Ahmed tiijaan ba bu neexee yàlla yàlla may ñu wër ak fekkee ci élection yi ñu jëm jigéen ñee koy joxe. ci suñu ay calebasse nag suñu liggéey yi ñuy liggéey di daan suñu doole rek mu may ñu doole nag jàppale jigéen ñi nag wan ñu ni ñuy liggéeyee jàngaluñu xasse jàngaluñu wax ju bon jàngaluñu wax ju ñaaw ndax ñiy wax wax ju ñaaw ñun ñoo nekkoon démb ak barki ñoo nekkoon ensemble di politikandoo man benn fa ñu rootee man fa laa meññee donc fi lañ juddoo fi lañ màggee kon ku dëkkul Medina du ñu jox ay directives ak di ñu wax fi ñuy jaara fi ñu dul jaara ay tapet la ñu duñu ay tapet dañu am lu ñuy rus am lu ñuy xool am lu ñuy jommal suñu bopp ndax ay kilifa lañ nag ay responsable lañ mais na ça veut pas dire que ñëpp a ngi naan CATB du ñu wax du ñu wax parce que liggéey moo ñu gënal wax li ñuy naan un tonneau vide fait beaucoup de bruit gis nga ko bu deful dara day bari bruit ñun liggéey la ñu xam te dinañ wane ne dina dañoo ngi liggéey nag incha allah bu élection yi egsee dinañ wan li ñu liggéey waa Médina nañ ko teg seen loxo ndax Cheikh Ba nag dimbali promotion de la femme lay def wala barki démboo ñaay déclaration bi mu def dinaa yëkkati 100 million teg ko ci table bi dimbali jigéenu waa Médina waxul waa SATB de waa Médina la wax waa Médina képp koo xam ne Médina nga nekk tey jigéen ñëwal am nga ci wàll nga liggéey kii jaay chandise ak kii jaay crème ak ñëpp la ñu boole waxuñu ko bokk fii ak bokk fële. kon bokk kon Cheikh Ahmed Tidiane Ba mii nañ ko jàppale ne te delloo ko njukkal wax dëgg neex yàlla ndax sa ñun loolu lañ soxla te at bu nekk nag mu def ko li muy dimbali tey jii xëy na du bësu nekk fi di wax li nga xam ne moom la investir Médina mais buñ ko doon wax du fi jeex. parce tamit nag wax dëgg neex yàlla yërëm na population Médina yërëm na jigéenu Médina yërëm na xale yi Médina yërëm na maguy Médina li muy def ci Médina li muy yóbbu màkk ci waa Médina kenn xamul nan la toll pour ñu ziyaare ji rasulullah koo yéene àjjana ngay yóbbu màkk kon boog ñun wax ju ñaaw ji dañ cee sonn nañ ñu bàyyi may ñu jàmm ñu liggéey Cheikh Ahmed Tidiane ba du bilan wam Cheikh Ahmed tiijaan ba mi muy jël di ko prononcer chaque jour si ay discours am na ko bàyyi nangaang mu yàbbi mooy mais ki nekk rek di tudd turam. institut waaw. tudd ma ko mooy maire de la Médina. Kaboy Ba ma tudd turam. Kaboy Fall la turam du dëgg. waaye xam nga maire jeexal na wax. waaw kay moom moo fi maire keneen du fi maire. du dëgg donc on en est vraiment wax dëgg neex yàlla ñu daal on avance ah, liggéey lañ sant ñoo ngi liggéey pour jël suñu leader yóbbu ko ci mairie Médina Mbé. salaamaaleykum. maaleykum maa ngi nuyu responsable CATB yi fi toog yëpp. maa ngi tudd Omar Sow nekk le responsable politique de la CATB nekk aussi. Euh, Ndombal Tànk bu bees le chargé de la communication politique je pense que Dieu fait bien les choses la Médina est dominée par des jeunes Cheikh Ba jël ki nga xamante ne ndaw la mu nommé ko à un poste aussi stratégique bu nekk responsable politique ba pare di ko waxal si kilifa bu tol noonu maa ngi remercier journalistes li nga xamante ne tey ay doomu Médina lañ ñu si ëpp. demoon ñu Gueule Tapée Fass Colobane bi nekk suñu ay doomu ndey lañ de pour di fa def déclaration pour li nga xamante ne moom mooy touché di impacter directement la population de la Médina. maa ngi leen di remercier ci seen taxawaay bu baax a baax a baax parce que concurrence dafay indi changement te changement day indi développement kon alhamdulilah li waral euh, point de presse bi parce que point de presse la. parce que bu doon conférence de presse la ñu jox leen parole ngeen mën a wax. moo tax dañuy joxe ñu suñu point de vue bàyyi leen ngeen yóbbu bés bu ñu waree def conférence de presse boobaa ñu échanger ak yéen ñu dem ci plateau yi télé yi pour mën a wax ak yéen. li waral point de presse bi c'est par devoir de vérité il faut rétablir la vérité faut oser le dire euh, ragal dafa baaxul ci àdduna. il le dire. que Wally Seck je le nag booy boobu boy bu ndaw boobu parce que coow li yëpp moo ko waral mais li nga xamante ne moo am solo mooy dañ dañu insidieusement l'autre camp le camp du maire dañ dem ba rue 25 ne que dañu am njaboot dañu am famille que dañ leen war a yar te li fi xew wax ay sëriñ kenn ñu gën a gëm yàlla kenn ñu gën a Médina dama bëgg ngeen jël image yu sama yaay booy bi toog sama gauche ngeen jël ko bu baax a baax a baax a baax mu doon mère bu baax bu am diine am valeur lu tax moo wax loolu mooy que politique lii la bu dee manipulation day am sax day am si anam bu ne ba day laal sax ay famille mm-hmm. est-ce que Médina loolu la ñu yaree mais des fois di nga déggal nit ba def loo warul def mais politiquement moo tëddee noonu c'est de bonne guerre la ñuy wax mais bandi yee ngi si ATB de saba nante la dafa xam nu muy def te da ko mën insidieusement on a accusé Wally yóbbu ko si côté LGBT par rapport au concert à la Médina parce que il a joué pour Cheikh Ahmed Tidiane Ba lu tax loolu dama bëgg tey man je parle pas au camp du maire parce que ça fait dix ans plus de dix ans dugguma ci mairie bi mais je parle aux Médinois pourquoi quand Wally Seck jouait pour le camp du maire kan El Hadj Keita jouait pour le camp du maire pourquoi coow li amul parce que c'était eux kon ñun yarul nañu de nous sommes démocrates nous sommes républicains et nous nous incarnons des valeurs comme notre leader mënuñu saaga parce que boo saagee sax leader bi da la koy tere et yaree wu ñu noonu dañaa na Cheikh Ahmed Tidiane parce que dafa am ay valeurs Wally Seck da ko wax mais li mu wax man Omar Sow ak ñi nga xamante ne ñooy ànd ak Cheikh Ahmed Ba xam nañ ne que juddu Cheikh Ahmed Tidiane Ba yiw na jëmmam duñ ci doyal ci ay valeur laa wax de parce que a soxloo ma ànd ak nit ba amul valeur na leer kon loolu moo waral coow li léegi bu loolu amee gis ngeen ñi joué si si artistes yi joué ci plateau boobu noonu gis ngeen mbooloo bu am parce que show bi kon dafa réussir moo tax coow li yëpp bëri. Mhm. parce que man li nga xamante ne bi bi 3 juillet concert bi muy amee ba pare li am mooy y une ruée de leurs de leurs anciens sympathisants de leurs anciens militants vers la CATB parce que dañ may woo téléphone ne ma Omar neexul ba neexul wante seen leader bi daf ñu neex moom sax laay jàppale léegi parce que moo gën a moo gën a jantal. kii moo ko dàq wax te moo ko ëpp xam-xam ñooy waaw ñuy reetaan man leen mais yàlla baax na l'essentiel nañu xam ne que lii fédéré c'est la Médina moo tax euh, yaay gabu waaw maa ngi lay ndokkeel di la jaajëfal pour tous les efforts que tu fais pour Cheikh Ahmed Tidiane Ba di la jox sa wàcc wàccuwaay te di xam ne que toujours ñu ngi sa wet foofu laa yem ak moom parce que du ma dugg si li nga xamante ne ay travers la beneen bi euh, on attend de de la mairie de faire un bilan sur ces sept dernières années c'est beaucoup d'argent mais bu fekkee ne tey tiit nga jaaxle nga yaa ngi dugguñ sax pré-campagne ñun instant yi dañuy lancement de dañuy foo nii di waxtaan suñu biir defal surprise euh, waa Médina parce que surprise parce que ça a été préparé en très peu de temps dañu doon foo en fait parce que gis nga politique boo koy def des fois da ngay wàccee tension bi nga def piano piano mooy Macky Sall li mu doon wax euh, gars yi golor yaa ak soow gars yi di wax rek moom day liggéey gars yi di ree parce que lu mu wax gars yi ñëw andi ci dara ragalu ñu fu ñu féete ragalu ñu tamit fu ñu jëm mais tey dam bëgg benn affaire leer nañ ci mbir mi que ni am na capacité bi am na compétence mais am na des gens de valeur qui sont derrière lui pour l'accompagner pour le pour pour pour pour le mettre à la tête euh, de destinée de des Médinois loolu lu am solo la pourquoi mu koy attaqué te du moom kese moo fi nekk parce que Cheikh Ba dafa tàmm liggéeyu suuf